fatwa ñu bëree bëri dañ koy jaawale ak ni wax qada qada moy atte fatwa nak moy ubbé euh atte moy ni ko borom xam-xam fiqh yi xamle ñi taxasus ci qada dañuy wax ni huwa al ikhbaru bil hukm al shar'i ma al ilzam qada da ngay at da ngay wone atte sharia ci mbir mi waye boko wone wanee nak da ngay wax nit ki ni ko par force li dang koy def kon juge bi day wax ni diw kat dafa naan sàngara wala diw dafa njaaloo ci misaal at teb ku njaaloo nag bu fekkee musta am borom kër wala soxna dañ koy dóor téeméeri yar loolu la xaadi bi wax ba nit ñi dégg ko mu ni kon nag waral naa ci ñiy dóor ñu dóoral ma diw téeméeri yar kooku mooy xadaa mooy atte kooku nag ki koy def faw day ànd ak appareil état état état musulman état islamique bi moom mooy moo koy wax mu def loolu kon nit ku nit ni rek wala ab famille nii rek duñ def lolu bu fekke dafa aju ci walu ray ak wàllu sank ab cër waye bu fekke ci walu yu melni dóor wala yu mel nonu comme niñ koy defee ci géde manes na ko def euh waye fatwa nak moy al ikhbar bil hukm xukmi shari min ghayri ilzam da ngay xibar nit ki atteb sharia waye doko ilzam do ni ko faaw ñu dal ko ci kaw lan mooy atteeb ku njaalo nga ne ko atteeb ku mooy ñu dóor ko téeméeri yar mbaa ñu dóor ko téeméeri yar génn ko dëkk ba am at loolu rek foofu rek nga yem yow mufti bi waaye bu dee xaadi bi nag xaadi bi moom day leeral atteeb ba pare daal di koy tanfis daal di koy exécuté def ko bu ngeen loo baatu al alkaati mi ngi jëlee ci alqaadi attekat rek moo tax ma ngi daa alkaati fatwa nag mbokk yi muy lu am solo muy lu am solo loo xam te nii faaw dañ koo itteewoo ci diine am solo gi mu am solo nag moo tax suñu borom subhanahu wa moom moo ko téyel boppam moo ko njëkk a téyel boppam moom yàlla wa yastaftuunaka fi nisaayi qulillaahu yuftikum ñu ngi lay laaj ci atte jigéen ñi waxal ni yàlla moo leen ciy ubbi yufti yuftikum maanaam moo leen di fatwa ci loolu moo leen di leeral atte sharia ci loolu suñu borom waxaat ni kaana naasu ummatan waahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأيلا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه موي نيت ييب وين خيت لاني وون يالا يوني اي يوننتي غير ني بيغ لي اك دي خوبي مو واتي سي نيوم اند اك نيوم اب تيري اب تيري بو خامتني ني داي واخ دغ غير مو اتي سين ديغنتي تي لي ني ووتي تي لي ني ووتي كون بو سيرلو سوني بروم moy ndeuk a téyel boppam fatwa dal ni man may man may leen di ubbi ci jigen ñi bam yag mu dénk ko yonente alayhi salatu wasalaam moy lam waxon ni shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti yàlla dénk ko yonente yi dénkaat ko borom xam-xam yi dénkaat ko borom xam-xam yi dénk ge borom xam-xam yi moy li yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni inna al ulamaa warasatul ambiya innal ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy way doonay yi dondu yonente yi wa innal ulama wa innal ulama lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman wa innama wurrisu hada al ilma fa man axada bihi axada bi xadin waafir mu ni boroom xam-xam yi nag mu ni yonente yi donduñ leen ci xaalis dirham wala dinaar waaye ci xam-xam bu màgg bii lañ leen dondu ku téye ndono lool nag na xam ne am na cër bu màgg a màgg a màgg am na ab cër bu màgg a màgg moo tax yonente bi alayhi salaam wax na ci benn xadis xadis boo xam te ni bu yéeme la mu wax ni inna bayna yaday saati sinina xadaa mu ni balaa yowmal xiyaam di jot dana am lu xew lu bees ay nit ñoo xam te nii ay warkat lañuy doon ci diine ca at yooyu bu agsee nag ki nga xam te nii day wax dëgg dañ koy fenloo kiy fen ñu dëggal ko ni nga wax nga dëgg waaye nee na bu boobaa ñu wóolu workat ba kii war lañuy ñuy gën a wóolu te bu boobaa it ki gën a wóor ki gën a wóor moom la ñuy jàppee ab warkat te bu boobaa tamit nee na wa yantiqu fiiha ruwaybida bu boobaa ruwaybida yi dañuy wax nag ñu ko yéen itam ñen ñooy ruwaybida muñ leen ruwaybida mooy almaru taafix yatakallamu fi amril aama fi amril aama mooy nit ku ñàkk solo la wax nit ku ñàkk solo te day wax ci mbooleem lépp lu xew ci àddina bi rek mu wax ci waaw amatu naas lu ñuy kii rek da cee daal di wax lu xew rek phénomène bu am rek nga gis mu fassiyene ci caa wax kooku mooy rowaay bidaa nit ko xamanteni jàngut amul xam-xam nit ku ñak solo ci société bi te lu xew mu bëgg ci ñëk wax bo sét lo kon lolu ak sene ci jamono ji kon. suñ borom nak fatwa da ko diisal reel ko mo tax wax ni wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha xalaalun wa hadha xaraamun li taftaru ala allahi alkadib bu len top sen banexu bakan rek lu xew ci diina ngeen naan lii dagan na lii araam ngir di naral suñu borom waye ñi naral suñu borom nak duñ taxé mako bo ëllëgé motax ibnu masud radiyallahu taala da wax naan alladhi yufti an-nas fi kulli ma yastaftunahu fihi maj fihi fa huwa majnun ki nga xamanteni liñ ko laaj mu ni xamna ko tontu ko neena jàpp leen ni am dof la motax imam malik masail yu bari bari laaj nañ ko mu dello ko ki ko don laaj ni ko man de dëkk ba dëkk laaj jógee di laaj ci kon magge lu may wax rek ba imam malik ni leen bu ngeen agge ne leen bo agge ne len laaj nañ imam Malik muni xamut laaj imam Malik muni xamut waye nak li fatwa di risque risque nak den ci xam-xam bo warono ta tasaare te nit ñi defo fatwa te waron ko man mo upp risque nak nëbbu xam-xam mo upp mo upp risque serigne touba wax na ci lu bare bare bare suñu borom wax ni innal alladina yaktumuna ma anzala allah min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fi kitab ulaika yalanuhumullahu wa yalanuhumul laainun nee na ñi nga xamante ni dañuy denc li ma wàcc ci ñoom ci lu leer nañ ñi ci ay diine ci diine ak njub ñu dem denc ko nanguwuñ koo leeral nit ñi bàyyi nit ñuy réer buñ leen laajee ci xam-xam imma seenu wara seenu sàmm tax maam duñ ñimee wax wala seenu nëbb xam-xam bañ nit ñi xam tax duñ wax noonu ñooñu day ñooñu day suñu borom rëbb na leen suñu borom rëbb na leen te mbooleem rëbbkat yi rëbb na muy malaaka yeeg nit ñu baax ñëpp ñu leen rëbb ak mbooleem lu ñu ci àddina yonente bi waxee man katama ilman aljamahu llahu yowma alqiyamati bi lijaamin min naar mu ni ku nëbb xam bu ëllëgee suñu borom jam ko ko def ko ay jam-jami xam-xam jam sawara la koy def bu ëllëgee kon nëbb moo gën a yées waaye mufti bi kii fatwaa ci ci diine am na ay charte yoo xam te ni dañ koo teg ci moom yoo xam faaw mu mat ci moom mu doog a mën a taxaw di ubbee ci diine bi ci njëkk mooy day nekk mu kallaf nekkub julit nekk ku wóor nekk kuñ boolu nekk ku set ci ak ñàkk fayda ak lépp luy ñàkk kersa ak lépp luy rotal kersa mu moytu ko waaye ci ak ci ak détail daal mën naa la wax ne bi ci jiitu mooy al buluuxu wal islaamu wal adl wa taklif fokk mu nekk mag ku jot xale ay waxam kenn du ko bàyyi xel mën mënut a kum ko ku mënut a seere nag mënoo àtte ci diine mënoo leeral atteb diine na nekk mag nekkub jullit nekk ku maanu nekk ku am mukallaf tamit nekk mukallaf boo demee ci al imaam al imaam al xatiibul baxdaadi mi faatu 463 leeral na ko ni ki noonu al imaamu nawawi tamit leeral na yu bari ci mel nii ñaareel bi mooy mu nekk ku wóor kuñ wóolu ci diine ba pare mu nekk ku set ci ak kàccoor ab kàccoor bu fatwa duñ nongu lam fatwa ab kàccoor bu ñëpp xam donte daa amoon xam-xam sax dañ bàyyi xel loolu waaye bu fekkee ab kàccoor la ab fatwa am dañ koy delloo duñ ko nangu kon ab kàccoor kenn nongu ab fatwa am nit ki noonu day mucc ci mbooleem luy xawaarimul muruwa loo xam day tax ñàkk tegin lépp da koy mucc da koy bàyyi du ko def ay lekk ci mbedd ak yu mel noonu yëpp da koy bàyyi waaw sol ay yére yu yiwut yooyu yëpp mufti bi dañuy charte ci moom mu bàyyi yu mel noonu foofu nag laay waxee ni nit ñi buñ jaawale nekkub sëriñ ci ci deret ak nekkub sëriñ ci xam-xam ñu baree bari nañu jàpp ni bu nit ki nekkee sërub diw rek lu mu wax ci diine noonu la déedéet faaw dangay wuti xam-xam ba pare comme ni ko sëriñ Touba jàngalee mag ñi jàngale ko bari na ñoo xam te ñu ngi wax ci diine te ñu leen diglu fekk te la tax ñu leen diglu mooy fañ bokk te saa yu waxee wax wax musiba saa yu waxee wax musiba am na ñoo xam ne ñi ngi daganal jox loxo jigéen am ñu ci daganal misik am ñu ci daganal sëy bi tamato tamato wala moog mutaa am na ñu ko ci daganal maam wax ni daal bu la neexee nga takk jigéen sax ci trente minutes wala une heure de temps wala deux heures de temps wala ay bis wala weer am na ñu bari ñuy wax loolu te fañ koy rek rek mooy ci ci këru diine laa bokk loolu nag du du du méthode ci lislaam lislaam xamut foo bokk waaye lam xam mooy loo doon yow ak loo def loolu lislaam xam niki noonu tamit na nekk koo xam te ni day nekk mujtahid te xam usul yi day nekk koo xam te ni bu masala bu mu bees ñëwee moo xam te ni masala mi amul woon jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye day doog a gaar muy naazila mu mën caa fexe ba ijtihaad ca aj ko ci atte yu njëkk ya ba mën caa génne atte bu lislaam boo xam te ni tey ji du wuute ak kitaab du wute tamit ak sunna sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ki noonu tamit euh, euh, day xam usul yi day xam alquran bu baax a baax bu ko mokkul tamit na fexe ba toujours atte bu nekk mën koo indil ab aaya ci alxuraan karim ba mën koo atte day xam alxuraan karim xami atteem xam muhkam xam mutashaabih muhkam mooy aaya boo xam te ni da nga koy dégg rek xam ne lay firi mutashaabih mooy aaya boo xam te ni day mel ni lee lay firi fekk firiwu ko subha moo tax suñu borom di wax ni hunna ummul kitaab wa uxaru mutashabihaat fa amma alladina fi xulubihim zayxun fa yattabiuna ma tashabaha minhu btigaa alfitnati wa btigaa tawilihi wa ma yaalamu tawilahu illa allah والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا كون آه، فاولو لا تي متا باي خيل آه، نيكي نونو مو خام العام اتي بيغا خام دا فا نيو جينيراليزي مو خام اتي بي موي لان اك خاص اتي بيغا خام دا فا نيو ني لي كات مو لي دا فا جينيراليز واي لي ديندي وان جينيراليز لي ملكون جينيرال ديف كو لو غنا جاغو سي تي الاسلام يوي ييب داكاي مان داي داي داكاي باي خيل موم مو خام ناسخ اك منسوخ آه، اي فولي تي القران ييب مو خاميكو ak yi ko folli am na atte yoo xam ne dañ ko folli ci alxuraanu karim ci buntum naa sax ak man suux képp boo ci duggoon dañ ci am ay yu baree baree baree bëri foo xam ni aaya bi day nekk ci alxuraan nekk fi ba pare atte bi dañ na amatut am loo xam te ni atte bi mi ngi fi te aaya bi dañ na atte bi mi ngi fi te aaya bi dañ na lu mel ni ci misaal rey rey ku njaaloo te am jëkkër kooku aaya bi doo ko gisati ci alxuraan dañ na te atte bi mi ngi fi kon folli mbirum folli ci alxuraan da xam buntu ba xam tamit nam demee yooyu yëpp dafa nekk loo xam ay aliya yoo xam te ni mufti bi mënu ko ñàkk xam niki doon day xam tafsir tafsirul quran xam daqaa'iq yi nag ci misaal tey bu ñëwoon di fi tafsir aaya bi suñu borom wax ni wa maa kaana allaahu li yudi'a imaanakum yàlla du sànq seenu ngëm mu firee ko gëm mu firee ko gëm bu boobaa day daanu gëm aaya imaan foofu du firi gëm ay julli lay firi foofu yooyu yëpp bi da ko war a xam kon ni ki noonu day xam sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam li yonente bi wax ak li mu jëf lépp da leen di mën a xàmmee luy wax foofu li bi wax li mu jëf lépp da koy daal di xàmmee ni ki noonu tamit day xam li yonente bi wax ak li mu jëf ci yenn yoon la agsee ci ñun ndax bi mees ñun mbooloo ñoo ko indi wala par kenn ñoo ko indi boobaa tawaatur ak ahad mbooloo ñoo ko indi wala par kenn moo ko indi ni ki noonu mu xam xiyaas xiyaas mooy nettale atte boo xam te nii amul woon jamono yonent bi nga gis ko waaye nga mën koo jël aj ko ci cosaanu atte yooyu amul jamono yonent bi ba génne ba génne atte bu baax nga xam illa ja xam yëpp xam bunti li ñuy wax illa al illa tamit mbooleem banqaas bu am nga man koo aj ci cosaan ya ba man a génne atte bi banqaas yi nga xam dañ cee noppi nga xam lislaam waxu ci nga aj ko ci cosaan yi nga xam lislaam wax na ci wax ay atteem xam nawaazil yi atte yu bees yi xew yëpp nga koy gis di ko xam di jokkoo borom xam-xam yi ci dëkk yi ci bees ngir di xam atte yu bees yi nga xam ne am na ci amul woon jamono yonent bi wala atte yi nga xam am réew ci amut ci meneen réew yi nga xam te ni jamono ji la waaye amut ci jamono jëlee xam li ñuy wax euh, euh, taxayurul fatwa bi taxayuri zamani wal makaan fatwa ni muy soppi koo ngir jamono wala ngir temps wala ngir barab mën ngaa fatwa ni ku nekk Amérique la ko fatwa wuute ak la ngay fatwa ni ku nekk Sénégal mën ngaa fatwa nit koo xam te nii mi ngi fi ren nang koy fatwa ak dewen man na baña a bokk loolu la du caagaane ni nu suus yi moo soppiku nu suus yi du soppiku mukk waye halu nit ki jamono yi nit ki limi dund ak halam mom moy soppiku ko motax mo la joxe misal ni Ibnu Abbas amna ko ñew ci mom ni ko ndax ray nit luy ab atte mu ko ay ku ray nit dañ lay ray te sawara nga jëm te mën a ñu toog tuuti keneen ñew ni ko luy atte ku ray nit mu ko ray nit yalla lay jégal bo jéggulo ñu lay kul tax nga wax lolou mu ku ñëk ki dama ko gis xamni da bëgg ray ni ma ko gisse rek ni hal andal ma xam daa ma ko bëgg a rey moo tax ma ne ko ku rey nit ama ab sab nga lu sawar nga ku mujj ki nag moom dama ko gis xam ne kii ni mu yërëmtaloo daara rey ba pare moom far ku rey ba pare nag boo ne ko ku rey nit du tuub mën naa gën a rey sax ngir moom mu am buntub tuub moo tax ma fatwa ko lii yii yëpp nag dee ko bàyyi xel mu toujours ci fatwa léeg nit ki da lay laaj benn masala fekk yow ba nga digloo kàddoom am na loo jàpp loo xam nga moom nafsiyaam ak xaalaam psychologiquement jàng nga ko ba pare ngay xam ni nga koy tontoo bu boobaa nag ñi déggut ñi nga xam te ni dégguñ fiq wala xamuñ wala bëgg nañoo dal ci sa kaw wala yu mel noonu mën nañoo dem di jéem a indi say wax ci beneen jamono ci leneen fekk te yow ka nga doon fatwa am na loo xamoon ci moom loo xam ñoom xamuñ ko woon ci moom